on va donner la parole à M. monsieur Toupan, pharmacien. Merci l'assistance. Je vais parler d'abord en français, après je vais parler en Wolof. Donc aujourd'hui, c'est un jour d'action de grâce. On doit dire merci Seigneur. Merci pour ce projet. Merci pour ceux qui ont eu l'initiative et merci pour ceux qui ont assisté à cette inauguration. Parce que l'enfant, comme le disait tout à l'heure Dr Frank, est tout pour nous. L'enfant est un être qui est faible, qui est sans protection. Et aujourd'hui, ce bâtiment que vous voyez, c'est une protection pour l'enfant. C'est quelque chose qui va essayer d'aider l'enfant à grandir. Donc, on ne peut que saluer cette initiative de Marindel et lui témoigner toute notre reconnaissance, toute notre gratitude pour nous avoir fait parrain de cette journée. Je pense que tout le monde, chacun mettra du sien pour que cette crèche-là soit un exemple dans l'éducation, dans l'entretien et dans l'accompagnement des enfants de notre pays. Et je ne vais pas terminer sans pour autant adresser un vif remerciement à ceux qui vont travailler ici. Ceux qui vont travailler ici, ceux qui vont s'occuper de ces enfants. Je vous lance un appel. C'est Dieu qui nous les a confiés. L'enfant est un don de Dieu. Et aujourd'hui, si Dieu a mis entre vos mains ces enfants, vous devez vous en occuper, comme si c'était leurs parents. Donc je vous lance un appel pour que aujourd'hui, plus que jamais que les gens protègent les enfants et non pas ceux qui seront même pas dans cette crèche, mais tous les enfants qu'on va rencontrer dans notre vie et qu'on va rencontrer également dans la rue. Donc euh, l'enfant étant un don de Dieu, Jésus avait dit, laissez les enfants venir vers moi. Il avait dit, tout ce que vous aurez fait pour eux, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc aujourd'hui, Marie-Hélène, vous êtes en train de suivre les pas de Dieu ce que Dieu nous a demandé de faire, vous êtes en train de le suivre. Que le Seigneur t'accompagne, que l'Esprit vous éclaire, vous et ceux qui vont travailler ici, pour que votre mission soit menée à bien. Lolo moom mooy la. yi fi parce que xalé bu mënee dem dafa am ay mak yu japp ci faire di gërëm mak yi fi nek tay gis nañu ay vidéo imam yi def ay ñaan gis nañu ay vidéo mak yi taxaw ça c'est rassurant da fay dalal xel day tax ñu xamné fiñu jëm ngi ci loxo donc dañuy ñaan yalla mag yalla yàlla fi et que li ngeen ngeen ko ci donc euh, avons ngi ñëpp di également marque bi nga mom lañu wone fi patronage yi fi ñëw ça prouve nettement que on œuvre pour les enfants dañuy liggéey pour xalé et patronage xalé yu ñëw xalé yu xalé yu gox ak ñun journée bi ça montre nettement que xalé yi ñoñu ñor et que lolu ñu ñaan yalla ñu tété nous ba suba ñu nek ay mak yo xamantene dañuy ëpp dañuy raw et que dañuy amal ndëriñ seen et je ne serai terminé, duma paré remercier wu parmi mag yi xalé yi ça fait 30 ans bi ma formé ci li muy def nii ak xale yi et tey mi ngi foofu ak ñoom muy euh, grand Jean Faye mënu ma wax te du ko remercier parce que 94 man la ma formé ci lii et que tey mi ngi nii di topp xale yi ba léegi donc grand Jean ngàcce ngalaama yàlla na la yàlla fay li ngay liggéey pour xale yi donc euh, je vais terminer pour def ay ñaan nañu yàlla may li ñu sumb ñu démarrer ko et que mu accompagner ñu sunu borom gunge ñu ba crèche bi nek crèche bu maga maga mag parents yi du bu ñu ñëwé ñu fekk ko fi bu docteur Franck bu amé dara mu daw ñëw docteur Maxime bu et que et que vraiment les objectifs soient atteints on confie tout entre les mains de Dieu merci beaucoup ndeysaan géwél yéen alalu yàlla de directeur géwél yi alalu yàlla merci beaucoup merci beaucoup géwél yi alalu yàlla bu ko doon bu ko saaga di ko amee may ko wala ji ko may samba kontaan na sama yere so sama dalem ñu ne manele fa manele ma ne leen patronage la bëgg a